Total Énergie génne ab bataaxal ngir xamle ni dafa soxla ñu delloowaat lii di gaz yu 6 kilos jàpp 9 ci marché bu ndakaaru ñu xëy wutali ci boutique yi ngir xool fi mbir yi toll borom boutique bi mi ñu dajeel lim xamle moom moo di waa Total ñu ngay wëy di daal di indi yooyu le gaz te moom tey si suba sax jot na ci loo boobu di now loo 28. Ah, man daanaka daanaka ramassage bi man yëguma ko parce que parce que tey jii nii tey jii jaay nañ ma fi gaz mais kenn waxuma waxuma ne ñoom dañu doon ramasser gaz indil na ma yaa ngi sama gaz yi ah yàpp naa ne waa Total ñoo ko indi. waaw loo 28 bi mu ngi ñëw. muy dikkaat di xamle ni jël na bépp matukaayam ngir daal di xool bu baax yan gaz lay dugal ci butigam. ñun daal suñu sécurité daal instant yi bu ñu jëndee gaz mën nañ xool ba xam gaz bi nekkul di peer loolu moom jàpp nañ ne bu fekkente ne gaz bi peerul dina yaa yaakaar nañ ne ñun xëy na amul problème su fekkente ne peerul di nekkul di peer. ak feesaay bi tamit bu fekkente ne amul lu ci manqué daal yaakaar nañ ne amul benn problème la lu jëm ci wàllu kaaraange ba tey nguur si ñu dajal di xamle ni li ni mel corps de contrôle yi ñoom ñoo ci waroon a gën a mën a taxaw laata bi la jéyee di am. état bi dafa war na am contrôle si aspect boobu gestion bi euh, corps de contrôle bi war na am au niveau de l' état corps contrôle bi bi ñëw balaa bouteille bi di génn si euh, total war na am mais su fekkee ne bu si nekk dafa faillir et surtout. état bi nga xam ne moom mooy protéger population bi su deful si travail travaillam ci fàttali Total Énergie mi ngi génnee bile bataaxal ginnaaw ba ay gaz yi daal di explosé jóge ci boobile entreprise bu ci mujj am fale ca Derklé ba juróom-ñaari doomu aadama ñàkk ci seen bakkan.